ju Macky Sall loolu la Bougane Gueye Dany doon euh, hmm. jéem a firndeel. en tout kii bi tudd sax euh, soxna Mané. Hmm. Macky a jiite réew mi pendant douze ans. Hmm. du dëgg douze quatorze. deux mu àndi si ak ay nit depuis mu commencé jiite. mu ngi ànd ak ñenn ñi. ñenn ñi di ko bàyyi ba ñenn ñi téye ko ba ñu génnandoo. li mu àndaloon ñi ko dab ci période bi nga xam bu ñu commencé booy def bilan ñoom ñëpp ils sont comptables bilan de Macky Sall. Mhm. Mame Boye dafa dem bokk na ci euh, l'ancien directeur Dakar Dem Dikk bokk na ci. Mhm. Mimi ci la bokk. ak képp koo xamante ni danga nga koo da nga ànd ak moom ba ba période nga dem am na foo bokkee ci bilan am. Mhm. quand je dis bilan mooy Mimi Touré ci régime Macky Sall amul lu mu doonul lu dul président. Mm-hmm. du loolu. <laughs> dëgg la président de l'Assemblée. Euh, <laughs> waaw mooy président rek mooy président rek. <laughs> nekkul président de la république d' accord. Mm-hmm. nekkul président de l' assemblée ok. Mm-hmm. nekkul président de de de de de parti ou de de coalition d' accord mais nekk na fi ministre de la justice. nekk na fi ministre premier ministre du Sénégal. nekk na fi également envoyé spécial du mm. président de la république mm. nekk na fi président d' institution mm. conseil économique social bi ñuy waaj a nii jiite woon na ko d' mu jiite ko pendant tout ce temps mu ànd ak Macky Sall donc bu ñu la waxee ne jege na Macky Sall wala jege woon na ko jaru ko xam nga ne jege woon na ko li gën a jege président de la République mooy premier ministre bi des fois ngeen déewante loo xamante ni ministre duñ ko dégg donc moom nekkoon na ci posture boobu mu nekk fa Macky di doxal muy approuvé Macky di signé muy contre signé. Mhm. kon ànd na ci doxale bi non. donc boo da ko ci bilan ci la bokk. Mhm. mënoo ko ci génnee soo ko ci génnee di wut explication rek mooy da ngaa far. Mhm. kolo yow intéressé wul la lu ñu tuddee équilibre léegi ànd ak Macky Sall toxul nga bon. li tax ngay bon mooy. li ñu di bu ñu ànd ak moom loo jëf. ci luñ la mm-hmm. dénk. loolu moom solo. Mm-hmm. léegi nag ñun xamuñu ñi ñi ko àndoon ak moom ba fidèle. ba mu daanu xamuñu danoo bon xamuñu danoo baax. ñi mm-hmm. ko bàyyi en cours de route xamuñu danoo bon xamuñu danoo baax waaye am na ñenn ñoo xamante ni dañ leen bindal. léegi ñoo ñuy bindal wala ñu war a wuyu ji wala ñu war a leeral ñoom ñëpp ngay dugal ci même bus bi ñu dem ba Dakar palais de justice nga wàccee leen ku ne dugg ci bureau juge ñu to ñu déglu ko amul Mimi Touré déedéet dafa bokk si ñun amul maître Moussa Diop si ñun la bokk amul maître Mame Boye Diao si ñun la bokk ñëpp la ñu war a dem ñëpp la ñu war a yemale. Mm-hmm. comme quoi yéen ñëpp da ngeen war a def rendre compte. parce que reddition des comptes warul yem ci les anciens dignitaires du régime rek. Mm-hmm. Euh, ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon ñu fi ñu fi ñu fa nekkoon avant mille 2024 déedéet ñëpp la. même ñi nga xamante ne dañoo commencé woon ñu ñu fal leen un mois ñu ñu ñu loo dimosé leen ci lañ bokk. Mm-hmm. loolu la léegi ñi nga xamante dañ loon faloon aussi euh, six mois ñu jëlee leen fii ci lañ bokk. loolu ñoom ñëpp ñëpp la ñu war a déglu y compris Mimi Touré dégg naa lu ko bëggoon waxal. Mm-hmm. xamoon ndax dëgg la. Mm-hmm. ah na dem bu tax ñu war leen déglu ah. déglu bi. lu ko bëggoon waxal non déglu bi nga wax kañ man laa comprendre lu tax ñu war leen déglu. Euh, révision de compte amul amul audition. waaw mais est-ce que loolu kañ rapport yi déglu nañ leen ba pare. pourquoi non xam nga rapport bu ñu la defee l'audition des comptes d'abord bu ñu defee rapport ba pare. mais rapport bu fekkente ne ci sa gestion yow amul dara lu la si teg luñ maanaam rapport bi yow ba ñu def audit déglu nañ la mais bu rapport bi bu amee ba ñu jébbal la bu fekkente ne amul ci recommandation rapport bi. juge bi ko jël examiné ko jugewul benn benn yoon gisul ni opportunité am na pour mu woo la pour déglu la comment bien buñ ko def rek mu nekk condition sine qua non léegi la benn affaire nga la justice déglu la non xam nga reddition des comptes du question de juge de la teg dara reddition des comptes dañu laa jox par exemple ñu ne la ministre nga ñu jox benn portefeuille ministériel nga jiite pendant A ba B ci jiite boobu noonu période boobu mhm. dafa am ni nga doon gérer. Mhm. am fonds yi tax ngay gérer. Mhm. soo fi jógee. Mhm. mais war nañu mën a nga laaj ñu ne la bu ñu la joxee nii noo ko utiliser. ça nga indi les pièces justificatives. léegi mais am na ñoo xamante ni rapport dégluwuñu leen am na xam ne UG déglu la am na ñoo xam ne Cour des comptes dégluwuñu leen am na ñoo xamante ni benn code de contrôle dégluwuñu leen mais pourtant mën nga jox te ne ñii def nañ dara. léegi ñi nga xam ne gérer wuñ benn alal ñoo xam ne mosoo ko nommé te nga xam ne kii am na influence régime bi loo xew non man cest à mënoo ko toppee pour gestion mais mën nga ko toppee pour par exemple enrichissement illicite. Mm. parce que ki nga xamante ni Macky Sall mosu ko nommé mënoo koo mënoo koo xool ba gis trace am ci gestion mm. état. Mm-hmm. doo gis benn yoon ñu ne retiré na xaalis moom moo santaane ñu retiré xaalis doo ko mos gis. Mm-hmm. wala ñu ne la retiré jox nañ ko chèque doo ko gis mais mën nga jox te ne kii mësul nekk ministre wala mësul nekk directeur. Mm. wante kii ni muy influencé. xaalis bii mu yore woon di ko def nii ak ne kii certainement am na ni mu amee xaalis lewul donc enrichissement illicite nga ko mun toppee. Mm-hmm. kooku su boobaa bu dee da nga naan bu sul yore réew rek do euh, poste plutôt. doo ko doo ko li ngay wax noonu bokk ma ak yow gis-gis parce que munoo basé wu ci ci ci ay njortu koo xamante ni déggoo ko benn ba amul investiroo ko benn pouvoir publique boo xamante ni dafay manipuler deniers bi. moom moo am activité personnelle am bu muy mëne. non j'ai xaaral mais ma ñëw rek wax ma loolu la. li ngay wax nag da nga ne da nga gis ni dafa yor xaalis. dama ne kii sëñ bi waaw wala nga préciser. man li ma wax dafa dafa am ñaari catégorie nit. Mhm. ci mhm. na ñoo xamante ni bu dee da nga naan tant que joxuñ leen ñu doxal poste doo leen topp kon jàppal ne ñi ngay bañ a topp ëpp sa lu ñu bénéficier ci nguur. Mhm. na ñoo xamante ni. président moom nguur moo mel noonu dafa am ñoo xamante ni ñii da leen di soxla pour ñu defal la loo xamante ni maanaam trace du am trace ay mission secrète mooy la. te loolu lañ doon toppee hmm? dóor def mission secrète kooku kooku est-ce que gis na ministre boo xamante ni vraiment envié na ko quoi. Hmm. heure bu ko neexee gis président heure bu ko neexee am ay millions kooku dafa est-ce que envié na benn directeur vraiment général mais xamante ni yow booy dekkee si xaalis. da ngay indi ay pexe pour mu génn yow nga am possibilité tout gis président tout mu jox la benn mallette 100 millions. bon Thioune man xaw ma peut-être concept émission bi. xaw ma nu muy demee mais c'est-à-dire li ma bëgg dafa am dafa am dafa am dafa am fu muy jaar c'est-à-dire c'est pas parce que kii c'est une personne influente ànd na woon ak nguur. parce que loolu aussi moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy problème bi c'est que il est une per elle est une personne nguur yor na bu ñuy topp dañ koy topp déedéet da da topp bi daa am lu ko fu mu war a cislaay bu mu war a am xëy na dañ doon topp koo xam ne dañ ko investir de de deniers investir ko ko ñu topp waaw mais ma ñëw mais ma ñëw ñu topp affaire bi c'est-à-dire ñu topp nit koo xamante ne dañ foofooy nekk point de départ bi mm-hmm. ñu topp kooku ba gis ni ne kii nag am na ay lien ak koo xamante ne ni moom bokkul woon ku ñu investir ci pouvoir public affaire bi yegg ci moom. mais c'est pas parce pas forcément aussi. Ah, waaw forcément waaw mais xam nga léegi bu boobaa cuun waaw ñëwal. dama laa limal ñaari catégorie dama la ne am na koo xamante ni. Mhm. moom mosul yore poste. mosuñ koo nommé mosuñ koo gommé ba xëy mosuñ ko consulter sax pour nomination. mais gis nga ne moom laata nguur gi di nekk. mosul nekk meluloon nii. bi nguur gi ñëwee. gis nga nu mu mel. kon gis nga ne am na évolution boo xamante ni. dafa am xaalis rek bu bëri moo fi jaar. mu mën a am. léegi pour mu leer kooku mënoo ko toppee kii ñu tuddee. mauvaise gestion des deniers publics parce que mosul mosuñ ko nommé mais mën nga ko toppee pour enrichissement illicite. mais lu tax nga war ko mën a topp loolu laa bëgg a wax. luy déclenché luy déclenché action si ah déet. yor la yor la dafa naan ah non amee. en grand justice non dafal nànk justice fenn rek lay amee confirmation. dara ak li nga nekk di wax li nga nekk di wax lenn la. da nga def benn présumé mooy njort rek. waa no mais ni mu ko si cadre arsenal juridique bi muy li muy utiliser nii présumé innocence innocent mooy koo xamante ne ni daa am ay tuuma yu ñu teg ci ndoddam dañ ko teg établir ko. Mm-hmm. mais tuuma yooyu àttee guñ ko. Mm-hmm. kon seta setagul duggagul. loolu mooy présumé présumé nañ ko innocent mais munoo fekk koo xamante ni affaire boobu noonu ñu koy ñuy tuddee kii présumé innocent koo xam ne bokkul ci cercle d'enquête bi nga ne kooku présumé innocent la ci fee yi mais ma ñëw rek c'est-à-dire man je donne un exemple genre waaw mais ma ñëw je ah. donne un exemple uh-huh. xam nga man li muy wax ni mënoon naa ànd ak moom ci côté boobu mënoon naa ànd ak moom ci côté boobu bu fekkente ne dañuy wax politique wala nangam nangam uh-huh. mais dama ne man li mu wax dafa léger ci man uh-huh. li tax mu léger mooy gis nga liberté dafa sacré nekkul loo xam ne dañ ko war a sape ci ci kii gis nañ ni avant nguur gi di ñëw yorul woon dara mais ba nguur gi ñëwee ba léegi donte investir uñ ko benn pouvoir public mais gis nañu am amam dafa dafa yokk dafa jéggi dayo léegi yow loolu nga def analyse sa interprétation mun naa mun na jox ne ah kon kii kon daa am ñu ko doon sàcc ci nguur bi di ko jox wala kii daa am ñu ko doon jox ay marché de manière illégale et cetera et cetera loolu noonu ngay ngay interpréter noonu yëpp mais munoo sukkandiku ci loolu rek pour topp ko foog mu am lu ko établir de du point de vue juridique. c'est que li may wax ak li ngay wax peut yooyu yow yaa bëggul dégg li ma wax. Ah, man li ma wax tamit la yoon bi lay topp. waaw mm. dafay ci ay renseignements sukkandiku ci ay. très bien ay indices. merci bàyyi ma wax la ma lay wax. Mm. léegi yow nit kooku nga xamante ne yow lay topp daf lay jàpp na yow lu mu lay topp par exemple mu ne la. yow da nga am amin boo xamante ne lewul jot naa da ko am amin boo xamante ne lewul. lewul ci présumé. Mm-hmm. d'être de t'être enrichi illicitement mm-hmm. mais nit ki par exemple pour mu topp man man juste mën na ma topp te te soxlawul mu jaare ci saa gis ma ne am na tras foofu noonu juste bu jàppee ne cuun mi il s'est enrichie illicitement bu ko jàppee amul fenn foo xamante ni obligation la pour naa non condition la pour nga topp ko day def ouvrir benn enquête contre moi mu xool exactement man na laa amee ak li ma am fan laa ko amee loolu loolu si par exemple kii bu defoon infraction supposée duñu laaj benn avis kenn dañuy ñëw topp ko ci loolu ñu jorte ne moom loolu la def hmm. léegi na boo géré ñu gis ne da ngaa nga am ci responsabilité ci période A ba X mais dañ lay woo ñu ne la yow li nga géré woon A ba X. nu mu demee ah, léegi nag audit la c'est-à-dire li a wax amul justice pour le nommer et justice pour ñi nga xamante ni ñu doon nommé. justice pour ñëpp ñi nga xamante ne jox nañ leen. ah kon ci non non man wax ma wax ma loolu de. Mhm. moom li léegi foofu est-ce que. non non moom moo ne li mu Euh, euh, teguwul. loolu est-ce que aussi du nekk problème euh, ci cas yooyu kon bu booba mun nañ ci xaar lu nekk ba ci réglement de compte bi ñuy wax ne peut-être mun nañ ko bañ a wax ci ñenn ñi mais fii bu booba bu fekkee ne loolu mën na nekk mën na ci am.